laa doon wax léegi sanu loolu dafa nar a man xoolewu ma avantage bi ci Bassirou du tiré mais li ma ciy xool mooy désavantage bi ci yeneen candidats yi nar a am parce que mm. on parlera du candidat en prison def focus ci moom ba ñenn ñi sax dañ leen di dañ leen di xaw a euh, non parce que Sénégal dafa dafa dafa mën a dafa mën a soxla non parce que l'international mm. imaginez euh, au Brésil hein Lula en prison gagné élection présidentielle donc euh, loolu rek déjà benn benn benn publicité euh, gratuite la te Khalifa dina mujj am problème sax pour pour non non en, en vérité c'est que c'est que Macky Sall ñun sax muy moo ñu défavorisé c'est Macky Sall qui a construit Sonko. mënoo xale Khalifa Sall tëj Karim Wade récupérer Idriss Seck un seul opposant dans un pays mais pare di ko brimer topp ko Sénégalais bëggul injustice. les Sénégalais ne sont pas des militants. les Sénégalais c'est des électeurs. nga tapp ko di ko def injustice boo xam ne avec un seul candidat de l'opposition mais ñëpp dem ci moom. tey yaa ngi defaat la même erreur ak Diomaye. Hmm. aujourd'hui il va focaliser focaliser l'électorat l'attention sur Diomaye te ñun ñëpp xam na ne le jeu deuxième tour sera va se jouer entre ñun Diomaye le pur ak le PDS. taxaw seen affaire waa. non voilà les voilà les quatre bëgg-bëgg mu mel ni. voilà les quatre candidats yi nga xam ne. xam lu ñu wax waaw. lu cas bi compliqué compliqué dañu bëgg candidat yi dem deuxième tour jóge yeewi. yeewi lay ah, jóge les deux candidats yi nar a dem deuxième tour yeewi lay doon maintenant xam na ne. gars yi xeeb nañu Amadou Ba de. non Amadou Ba du dem Amadou Ba du bokk deuxième tour. loolu moom am xam nga ñoom ñoo ko wax. parce que ñooy demander report xam nga ku demande report rek mooy ko toog.